jërë ngeen jëf mbokk internet yu Galsen People yi ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu dalal benn kilifa boo xamante ne mën naa ne kenn dootu ko présenté si mim réew ñu koy wax Serigne Mohamed Diop Serigne Mohamed Diop ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet yi lay seetaan. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. baad auzu billahi min asaytaani rajim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa radiallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billahi al aliyul azim ñu ngi lay fay nuyoo du nuyu mbooleem fu nit mën a nekk ci àdduna bi tey topp émission bi di ñaan yàlla lépp luñ fi nar a waxtaanee yàlla nekk njëriñ képp ku ñuy déglu bi xamati mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam macha allah Serigne Mohamed Diop euh, ñu ngi fay bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax sa kàddu yu set yooyu xam naa dañuy jàll si programme bi ñëw suñu première question rek indi seet ak sarax ñaar yu doy waar. waaw alhamdulilahi beneen yoon laaj nga laaj bu am solo li alquran di wax ne wa atul buyuta min abwaabiha bu ngeen di dugg ci kër yi nangeen jaare ci bunt yi ab sëriñ njëkk ñaan lu njëkk am solo mooy nit balaa nga koy ñaanal war ngaa xam kii lan mooy jàngoram wala lañ moo upp ay mbiram loolu nag mën mënoo koo xam lu du ci buntu seet seet nag ñun yàlla may ñi ci ñi am ci xususiya am ci jagle bu yaatu dinaay wax ne ma seetal nit ñàkk koo gis du am mukk képp koo xam ne seetal naa la la ma lay wax dafay méngoog la ngay dund te dinaay wax ne képp ku la ëpp lu muy xool ay mbiram moo la mën a gën a nekk ci situation yu baax képp ku la ëpp lu muy dem ci médecin moo la gën a am wér-gu-yaram te yonent bi sallallahu wax ne man man xaaba man istaxaara wala nadima man itishaara mun a ñaar ñi duñ perte mukk ñu ne ko kan kan mun a ki nga xam ne balaa dugg ci mbir daf koo xollu ak ki nga xam ne balaa dugg ci mbir dafa diisoo nga gis ne nit bu diisoo rek dana am rési dana am résultat bu baax nit bu seetloo tamit dina am ci dundam lim bëgg ba xam ne nag képp koo xam ne seet moom nga bëgg buñ ci boo ñu ci contacter bu soobee yàlla lan lay wax moom amul dara lu ci dañ dana méngook la ngay dund seet moom amul benn nit bu ma koy defal te du gis résultat amma seet boo seetee ba pare sarax dana génn sarax di lu am solo ci doomu aadama yonent bi sallallahu dana wax ne asadaqa tam na ul mawtu suu'i wa tuvakku balaa sarax dina fekk deegu ñaaw te dina la fegal ay musiba ak i balaa lu rek jar na tax nit ñi war waxtu wu nekk di saraxe lu lay fegal musiba ak balaa te di la fegal deegu ñaaw loolu war na tax fu nit war a toll di saraxe mu waxaat ci beneen xadis ne maa naqasat sadaqat min maali wa maa zaada allahu abduhu afwan ilaa rafahullah yàlla du wàññi alali jaam bi nga xam ne dafa jël alalam di ko sarax ñee ko ñu ne ko lu ñu ci jëlee mun a jaam ba koy def lu dut yàlla dana ko dolli te dana yëkkati ay daratam te dana ko jéggal yonent bi sallallahu alayhi wax ne su ma bañ toon a sonal sama xeet wi kenn ku nekk trois cent soixante cër mu ngi ci cëru doomu aadama te ma sonatoon banu sonal sama xeet wi kenn ku nekk cër boobu boo xëyee da nga ko génneel sarax moo tax nit wërta xëy ba jant bi so te saraxul ku la ëpp lu muy saraxe moo la gën a mën a am situation yu baax ku la ëpp lu muy saraxe moo la gën a mën a génne ci ay problème waaye nag sarax dafa yaatu am na ñoo xam ne liñ ànd ak ba gudd sarax soow am na ñoo xam ne luñ ànd ba gudd tuur deret am na ñoo xam ne luñ ànd ak ba gudd génne lu xonq loolu yëpp nag ku loo koy mën a xamal mooy sëriñ bi nga xam ne man na seet te seetam doon seet bu wér boobaa di nga xam lan mooy sa sarax loo war a saraxe ak saraxe macha allah Serigne Mohamed Diop euh, si kàddu yu am solo lool xam naa dañuy jël suñu beneen question rek ñëw si ubbeeku bu doy waar bi nga xamante ne Serigne Mohamed yaa ngi koy def. waaw ubbeeku moom yàllaa ñu ci dimbale dinaa wax ne képp koo xam ne jëflanteeg ak man ci wàllu ubbeeku te yokkuwoo du am mukk ubbeeku moom ku ma ci jëflanteeg. Mhm. ca kanam nga jëm waaye doo dellu ginnaaw te dinaa wax ne àdduna taxaw benn place amut. Mhm. benn da ngay dem ci kanam wala nga dellu ci ginnaaw. te yàlla def na am na buñ ci liggéey boo xam ne ñëpp xamee nañ ñu ko muy sóobi dira ay weer a ngi nii nekkoon ci àll bi du ut garab yi nga xam ne moom lañ koy composé alhamdulilah lépp mat leneen ko soo bi bu ñu la koy liggéeyal da ngay jënd soo bu bees indi ko ñu defar la ko fii sa kanam nga dem sangoo ko juróom-ñaari fan yu tegaloo boobu dinaa wax ne képp ku ko sangoo ci at ma ko sangoo. at moom da ci yokk ba yaakaar ne yow rek la yàlla bindal wërsëg te amul kenn ku koy sangoo di dellu ginnaaw mm-hmm. fekkee da nga nekk ci biti tamit dinaan la wax nuñ koy liggéeyee mm-hmm. waaye amul benn nit bu koy sangoo di dellu ginnaaw fekkee ubbeeku rek nga bëgg ba jëfandikoo ko ba sangoo ko mm-hmm. ñëpp dana la dégg seen famille sax bu fekkee ne dañ la doon dimbale ba nga sangoo ko ñu la doon dimbale boo amul sens nga mujj di leen di dimbale ubbeeku daal képp koo xam ne dikkal nga ñu ci ca kanam nga jëm waaye doo dellu ginnaaw macha allah Serigne Mohamed li nga wax am na solo lool mais xanaa ubbeeku bu doy waar boobu boo ko amee di nga waaw jinax bu mu ñëwee ci sëriñ bi na ko ñaanal ma mm-hmm. ma am bayre mm-hmm. sëriñ bi ñaanal ko mu génn dajeeg mus nar ko lekk daf wax sëriñ bi na ko teg ci kaaraange mm-hmm. ba danay wax ne nit boo amee ak ubbeeku fokk nga ci cislaay ko kaaraange pour mën a mucc te danaay wax ne at mii ñi dugg nii de ati 2023 bii képp koo xam ne yaa ngi ci dund te amoo kaaraange yaa ngi dund ci xataara li arab di wax xataara mooy yaa ngi dund ci danger parce que at mu nar a tàng la at mu nar a métti la at mu nar a bëri ay fitna ak ay gàllankoor la te képp koo xam ne bëgg nga mucc ci fitna yooyu te mujj ci gàllankoor yooyu na nga daw nga uti kaaraange képp koo xam ne daal amoo ko xamal ne yaa ngi dund ci danger kaaraange nag ñun yàlla dimbali nañu am na ci yoo xam ne dañ koy liggéey am na loo xam ne boo koy sangoo dafay ànd ak mbott mu dee am na ci yoo xam ne dañu ut ñax yi nga xam ne dafa jóge ci biir armeel ñax yooyu am na noo koy utiliser boole doomu balu fetal ak benn tobb boo xam ne moom lay ànd ak boo koy sangoo da ngay baxal ñax yi ba mu bax nga jël lañ lay jox nga def ko ci biir nga sangoo ko boo paree nga delloo ñax yi ci biir armel gëñ naa ci yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ko xam ne yëkkati na lu bon def ko ci yow du man a jàpp te ku la liggéey fa nga jëlee ñax yi delloo ko fa deneen ko fa yóbbu te bis boo ko sangoo benn mbindeef bu yàlla bind mënu laa liggéey mu jàpp bu la liggéey ma jàpp ma xàcc kaaraange moom ku ma ko xas a jox nga sangoo ko ba pare nga jëfandikoo sama kaaraange bu la neexee bul tu sangooti benn kaaraange te amul benn mbindeef boo xam ne mën na laa def dara mu jàpp bu soobee macha allah Serigne Mohamed Diop euh, kaddu yi am na solo bu baax a baax xam naa dañuy jàll suñu beneen question euh, muy rab parce que nit ñi dañuy jaawale léegi jinne ak rab. waaw xam nga arab yi dañuy wax ne bëri tur dafay waral te dàngik la ñu tudd rab mooy jinne arab mooy wax jinne olof naan rab rab nag di mbir moo xam ne mbir mu doy waar la mbir moo xam ne mën na di turil dund doomu aadama da nga gis jigéen mel nu mu a mel góor gu ñëw pour son ko ngoro bu dara desul lu takk rabam bi xabtal la ba nga bàyyi. jigéen mel nu war a mer rabam sonal ko ba nga xam ne du mën a am jëkkër nga gis góor te dëkk jabaram ci biir néeg dem ci biir toilette bi surbe boppam ba yëg bànneex mu koy gënal mu jaxasoog jabaram nga gis nit yor alal rab bi la ba sa alal ji yàqu nga gis nit xëy toog ci kër di mer kenn du ko def dara loolu rab da koy waral rab mën na tee jigéen ba du am door doom rab mën na tee sa yaram ba doo mën a dox rab mën na la gàllankoor yàq sa liggéey yàq sa lépp ñu nag yàlla dimbali na ci danaay wax na man rab du ma ko faj faj mooy loo xam ne mën nga koo def mu dellu si man dama koy dindi ci doomu aadama bam seet wet képp koo xam ne da nga am rab rab bu mu ci man di doon nga ñëw ma jox la téere ba ngay takk ak la ngay suuroo ak la ngay sangoo bu keroog wee da nga tàggoog rab te rab dootu la jege mukk ba ilaa yow mi te dafay dañ ci yow ba seet wecc rab bu mu manti doon boo ñëwee man dama koy dindi bu soobee yàlla macha allah sëriñ Mouhamed Diop kàddu yi am na solo bu baax a baax képp koo xamante ne am nga rab wala am nga ki la jege ku am rab boo ñëwee sëriñ Mouhamed mu faj la ba nga wér mu dindi ko xam naa dañ jël suñu beneen question rek muy wàllum bayre waaw bayre alhamdulilah am nga bayre dinaay wax ne képp ku ko ñàkk pour nga lijjanti dara mu mën a sotti lu jafe lay doon bayre nag alhamdulilah ñun ñaar lañ ci liggéey mooy bayre jaay ma jaay ma bi boobu pour wàllu commerce la bépp commerce boo xam da ngay commerce te amoo njarte boobu bayre jaay ma jaay ma bi lañ lay jox ku dul commerçant duñ ko jox beneen bayra bi mooy bayra boo xam ne fekke da nekk ci entreprise sa patron mënu laa digérer mënu laa gis du la du la yërëm nga bëgg am fa bayre mu jox la bopp jox la làmmiñ ak foo dugg tamit lépp loo fay lijjanti mu bañ a jafe ak képp koo wax ak tamit li nga wax ak moom mun man koo def bayre boobu mu fii dañ koy liggéey te bayre boobu buñ koy liggéey day ànd ak juróom-ñaari parfum yoo xam ne bokkun ak lañ koy bootalee defal la ko bu soobee yàlla moom ko boo ko sangoo amul dara looy lijjanti ci àdduna mu jafe amul benn dëkk booy nekk tamit te yàlla du la fa may teraanga te du la fa may xéewal te buñ koy liggéey tamit boobu tamit dañ koy cëslaay kaaraange parce que nit ñi buñ lay tudd tudd yu bëri tamit foog nga mën a mucc ci ñoom pour lañ lay tuddee nga mën koo jot te boo ko jotee nga mën koo jariñ mën koo jariñoo képp ku ñëw daal bayra boobu tamit alhamdulilah mu ngi fi macha allah sëriñ Mouhamed kàddu yi am na bu baax a baax ba dañuy ñëw suñu beneen loo xamante ne mën naa ne ñu bëri ñu ngi koy soxla muy wàllum nopp waaw nopp alhamdulilah nopp mooy góor goo xam ne dafa bëgg jigéen jigéen gi di ko dawloo wala jigéen gu bëgg góor góor di góor gi di ko dawloo wala nga investir ci jigéen lu bëri dem ba dara desul lu takk mu indi ay tànk bukki wala mu indi ay benk ñenk nga bëgg ñu nobal la ko teel la ko loolu nag alhamdulilah ci ñu koy liggéey mooy naat bu góor ak naat bu jigéen lépp loo xam ne lañ ciy def bu soobee yàlla juróom-ñaari fan du ko romb ka nga koy def dana xabtalu ci yow te dana la topp comme xaj nu muy toppee borom moo xam nopp bu mu ci manti doon mm. ba tey tamit yaatu na da gis borom kër goo xam ne ma ay gorom mënul juboo nga fexe ñu nopp leen bañ juboo loolu dañ koy def mm. waaye bépp nit boo xam ne da nga bëgg nit mm. mu dëgër ci yow te mënoo coo moo xam nga takk jabar mu fay mënut ñëw moo xam nga bëgg jigéen bëgg koo takk moo xam jigéen bëgg góor bëgg koo takk lu ñu ci liggéey borom du macha allah Serigne Mohamed Diop kàddu yi am na solo bu baax a baax mais suñu question bi nag question bi euh, jigéen ñu bëri ñëw ñoo ma ko yónnee parce que ñu bëri ñu ngi rafet macha allah am yenn âge nag ñi ngi jëm mag mais wut jëkkër moo lañ jafe wala ñi nga xamante ne ñi ngi seen néegu sëy bëgg am doom wala am benn doom taxaw Serigne Mohamed lan ngay dindee loolu. alhamdulilah jëkkër moom dinaa wax ne képp koo xam ne jëflante nañ ci ñu jox la lañ lay jox lii nga fuddanoo ko li nga sangoo ko ci kaw boo dàqewut au moins doo ko génn te gisoo góor gu la takk ci kaw boo dàqewut xam nga dit dana la ñaanloo ba gis jëkkëram ñu ne borom teraanga laa bëgg ñoom teraanga mooy ku am xaalis te yontu bi sax wax ne iza raaytu rajula man tardu di man tardaw diinahu wa xuluqahu fa tazawij bu ngeen gisee góor ngeen nawloo jikkoom ak diineem na ngeen dem seylu ko parce que jikko mooy tax mu mën laa yor yor bu rafet diine mooy tax mu mën laa yërëm alal du du du alal du du dafa gaar ci sëy rek parce que alal nit mën na ko am suba mu ñàkk waaye nit bu amee jikko bu rafet am diine dana la mën a yor yor bu rafet loolu daal bu ñu la ko joxee nga fuddanoo ko li nga sangoo ko weer wi yàlla daal doo ko génn te gisoo góor gu na la kaay ma la ci kaw boo dàqawut am maa nag jigéen joo xam ne dafa të am doom moo xam koo xam ne dafa am ba ci yàgg mu taxaw ay at wala koo xam ne mosta am te rombut ci as boo xam ne romb na as boo rombut ci as boo xam ne amul dara lu koy gàllankoor lu dut mu mën a tere am doom kooku bu ñëwee ñu ciy jëflante dinaay wax ci buntab sant yàlla mosuma cee jëflanteeg nit yàlla gàcceel ma ci te képp koo xam ne mos naa caa jëflanteeg yow rek mhm. yàlla defal na la ba nga am nga tut tànk képp koo xam ne mooy sa problème boo fi ñëwee bu soobee yàlla lañ lay jox nga jox ko waaye ci kaw nag dafay fekk sa jëkkër nekk fi mhm. buñ la ko joxee lii yéen ñaar a koy bokk lekk ngeen bokk bokkoo naan mhm. su ngeen paree ngeen jaxasoo la yàlla may woon bu ko dindiwut jaxasoo bopp boo ci jug di jugaaleeg ëmb bu soobee yàlla macha allah sëriñ Mouhamed Diop euh, kàddu yi am na solo bu baax a baax dafa am loo xamante ne tamit sonal na ndaw ñi sonal na néegu sëy sonal na ñu bëri daal muy wàllu kàttan ay jamono mag yi la daan gën a dal mais léegi dañoo seetlu ni xale yi lay gën a dal. waa alhamdulilah dara warulu ko lu dut fo bu bëri bi ak yenn lekk yi. Mm-hmm. waaw te Umar Xay si daan wax ne mun a góor ñaar jigéen ñaar la gën a bëgg ci àdduna. Mm-hmm. benn bu ko ñàkkee mën na koo muñal góor benn bi mënu koo muñal kenn bu ci njëkk mooy xaalis jigéen bëgg na ko bu ko ñàkkee mën na koo muñal góor waaye ñàkk kàttan jigéen mënu koo muñal benn góor moo xam donal sëriñ donal xutbu zaman donal waliyu donal président xamal loo mën di doon waaye ñàkk kàttan jigéen mënu koo muñal benn góor képp koo xam nag dalaa dal te judduwaale woo ko ñun boo ñëwee am na ci yoo xam ne buñ la ko joxee nga jëfandikoo ko di nga am kàttan gu raw ba nga amoon bu soobee yàlla te képp koo jaxasoog boo xëyee dañ la tegal ndekki lu neex bu soobee yàlla. macha allah euh, sëriñ Mouhamed euh, kàddu yi am na solo bu baax baax képp koo xamante ne feebar bi di néew kàttan dal na la boo ñëwee sëriñ Mouhamed incha allah sa aajo dina faju xam naa dañuy jël suñu beneen question rek muy wàllum papier ñi nekk bitim réew def fa 15 ans vingt ans bëgg ñibbisi mënuñoo ñibbisi. waaw papier de sant naa yàlla bu baax yàlla mosu ma cee gàcceel képp koo xam ne moo doon sa jàngoro yàlla def ñu jëflante ci nga ko. dapee moom mosuma seetlu fu ma ci yàlla gàccelee te kooku nag dama cee am may te am ci ndigal képp koo xam ne papier mooy sa gàllankoor nga fexe ba dégg ma bu soobee yàlla moom papier da nga ko am la yàlla may woon moom papier la dama cee am jagle képp koo sa mbir la nga fexe bañ déggoo maag da nga ko am te wax dëgg yàlla nit nag réew mu mën di nekk am kayit mooy tax nga man faa dund dund bi stable am kayit mooy tax lu dal sa njaboot nga mën a ñëw waaye nekk ci am réew 15 ans mm-hmm. say waajur di génn àdduna say ginnaaw say rakk di génn àdduna say ginnaaw mm-hmm. say baay di génn àdduna say ginnaaw mënoo ñëw mm-hmm. loolu lu métti la lépp loo mën di am ci àdduna teraanga foofu am kayit mooy teraanga bu gën a kawee képp koo xam ne mooy say gàllankoor incha allah buñ ci dégg buñ ci bu buñ ci déggantee loolu moom da dana jeex ci yow bu soobee yàlla macha allah sëriñ Mouhamed Diop euh, kàddu yi am na solo bu baax a baax ñu jàll suñu beneen question bi rek lii nag dañ ko force weewu béy ne da nga yor ay jaaro yoo xamante ne jaaro yu doy waar la. waaw sama jaaro rek kenn du ko takk te alal du la yomb képp koo xam ne takk nga ko foo man di nekk ci àdduna wërsëg fekk jaaro baa ngi sa loxo bi doo tàggoog wërsëg ci sa loxo fekk jaaro baa ngi sa loxo bi. alal moom du tàggoog ci sa loxo mukk te ñaareel bi tamit réew moo ko takk di fa dund da fa dund ba xëy génn àdduna doo fa am gàcc te da nga fa dund ba xëy génn àdduna doo dugg ko so waaw te ku ko takk doo tàggaloo ko wërsëg bu soobee yàlla. macha allah sëriñ Mouhamed Diop euh, kàddu yi am na solo bu baax a baax xam naa dañuy jàll suñu beneen question rek euh, bi mooy dernière question si programme bi muy wàllum sa da ngay samp nit. waaw alhamdulilah parce que sama maam yi bëri nañu fi falu ci réew mi. Mhm. fa lañ leen sampee mhm. te guy gan daan sampee ba léegi guy gaa buur yu mos samp yu bëri boo ñëwee fa lañ lañ samp ceddu yu daan samp lépp fa lañ dana képp koo xam ne da am mbir bëgg ñu samp la ci samp goo xam ne benn nit dootu la mën a sempi ba ilaa yomi samp goo xam ne nit ñi dañ lay séen rek comme sibi te kenn dootu la mën a sempi boo ñëwee ñu waxtaan ci ba juboo ci incha allah bu ñu la sampee say mbir sa kaw rek la jëm waaye sa mbir dootu nërmeelu ba mukk te amul benn nit boo xam ne dina la mën a nërmeelu moo xam ci lépp looy di xëccoo bëgg ñu samp la ci boo ñëwee buñ la ci sampee da nga ko jot bu euh, euh, waxtaan bi neex na lool mais xam nga rek waxtu daf xaw a tënk dañuy ñëw rek euh, jàll suñu question actualité bi muy combat bi am si digganteeg Balla Gaye ak Boy Niang bi Serigne Mohamed loo si gis. alhamdulilah beneen yoon man nag yàlla mu ma dimbale mbiri làmb moom daanaka. Euh, du ma ci wax parce que dama bokk ci nit koo xam ne dama respecte sama bopp parce que jàpp naa ne ñàkk fayda weesu wut ku la fayut ngay xool mbiram jàpp naa ne loolu ci ñàkk fayda la bokk comme fayun ma joxun ma <laughs> ñi ma yaakaar jox ma seen alal ñooñu moom jàpp naa ne ñooñu laa war a xool seen mbir ba xam seen mbir lan mooy gàllankoor ma taxaw ci ba seen mbir avancé ay doomu Sénégal leen mi ngi ci ut boobu la ñu ut pour mën a teral seen njaboot mm-hmm. awma ma dara lu ma ciy wax dal macha mm-hmm. allah Serigne Mouhamed Diop waxtaan bi neex na lool xam naa duñ def lu lu ñëw bàyyi la nga tàggatoo. waaw alhamdulilah tàggatoo bi de di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiix mm-hmm. te yàlla dimbale ni ci at mii xam ne ci lañuy dugg mi atam 2023 bi képp ku ci am jàngoro yàlla na ko yàlla faj képp ku ci am ay gàllankoor yàlla na ko yàlla tegg yàlla na yàlla def ko mi atam xéewal def ko mi atam naataange def ko mi atam barke lépp loo xam ne dundu neen ko ci deux mille vingt deux bi yàlla buñ ko gis ci deux mille vingt trois bi at mu nar a tàngale nag ci réew mi waaye ñu ngi ñaan képp koo xam ne njaboot nga di ko man del bëri looy saraxe ngir mucc ci at mi at mu nar a tàng la waaye ñu ngi ñaan tàng bi yëpp yàlla rek moo mën a saafara yàlla na yàlla def lépp ci jàmm ak ci salaam ñu dugg ceeg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm wa ma zalika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu